mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala ci lim ñu baaxee ñu dajewaat ci ab néegam di fas yéenee jël benn bind ci lu aju ci diineem ji ñu koy sukkandikoo ci téere bi di minhajul muslim bu abubakar jabir aljazairi rahimahullah ñi ngi waroon a jël tey lu ñuy tuddee almaadatu rabia achara fi salaati al istisqa buñ demee ca buntu julli ya fukkeelu bunt ba ak ñeent mi ngi lay jàngal lii di jullik ñaan taw sun maam yi di ko wax jullik baaw naan incha allah jàpp naa bu dee mbokk yi gis nañu ko day wax kon mu ni xukmuha lan mooy at ceeb jullit ñi ñàkk ndox génn dem di ñaan ngiree suñu borom yàlla may leen ndox bu ñu naan loole mu ne salaatul istisqaa'i sunnatun muakkada génn dem ñaan ndox day sunna la bu ñu feddali ca mooy yellul ci jullit ñi ñu toog nawet ba nawet bay waaj a jeex tawluwuñu ba pare génn ñu dem ñaan ndox loolu day nekk sunna boo xam ne daanaka dafa xaw a mel ne farata lu waral loolu faalaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi da koo def wa alanaha fi nnaas da koo siiwal ci biir nit ñi wa xaraja laha ila al musalla daa di génn ñeel julli googe ca place ba mu doon jullee iit qaala abdullah ibnu zayd xaraja nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yastasqi yonent bi day génn na di ñaan taw fa tawajjaha ila al qibla mu jublu ca qibla ba wa xawwala ridaahu daa di wëlbati la nga xam ne nii mooy làmbaayam ba suma salla rakaatayni gannaaw ba mu julli ñaari rakka jëhëra fihima bil qiraa da ca biral la nga xam ne nii moom mooy njàng moom doon njàng kon mbokk lii nga xam ne mooy julli ñaan taw dañu xam ni lu bari ci jullit ñi tey xamuñu ko lu waral loolu mooy nit ñi dañoo am luñ koy soppee da ngay dégg nawet bi dee ñu ne suñ diw nee na ku nekk sarxe gorosub sukkar wala keesug sukkar na ku nekk def nangam ci ay istixfaar na ku nekk def nangam na am sarax day baax na zikrullah baax na waaye nag la yonent bi alei salatu wasallam bàyyi woon xeet bi moo ko gën donte ne néew na ñoo xam ni ñuy jëfe loolu falilahi alhamd ba mbokk yi fii ci stade bi am na ñaari yoon yoo xam ne nii organisé nañ fi ay julli baaw naan mu ne it yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo def gannaaw ba mu wax taxawaay cenam ko doon defe ñaareelu bind bi mu ne maanaaha lan mooy maanaam julli ñaan taw wa hiya talabu saqya mooy génn ngir ñaan yàlla nandal min allah mooy nandal ko bawoo ci yàlla azza wa jal mooy lil bilaadi wal ibaadi bi salaati wa du'a mooy ñaan yàlla nandal dëkk bi ñaandal jaam yi ci julli goo xam ne day ànd ak ñaan wal istixfaari inda xusulil jadabi mooy boole jéggalu heure boo xam ne ak maral am na loolu mbokk jullit gis nañu ne jaamu yàlla la goo xamee ne nii suñu borom yàlla tëral na ko ba pare di ci wuyu ay jaamam la shakka ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na ñeel ànd ak jullit ñi dem di ñaan taw avant muy dellu këram taw bi commencé sóob ba sallallahu alayhi wa sallam daa di wax mbubbam ma ngir taw bi di dal ci kawam mu ne lii xéewal la ko ba woo bey sa jóg suñu borom loolu yi tamit suñ maam yi bañ ko daan defit yàlla daana leen ci wuyu amoon nañ suñu góoru pël gu doon jóge boori jolof nettali na ma ne ci dundam fekk na ñetti yoon ñu dem di ñaan jullit taw taw ba dàqaleen fa mu ñuy jàngal ni kon taw ci yàlla lay jóge doonte ne ni ñi nga xam ne duñu bàyyi yàlla xel moom dañuy yem ci comment bi tax taw bi di am te mooy taw buy am day am évaporation am concentration air yi nekk ci kaw am kaza wa kaza mu am taw d'accord loolu lépp d'accord waaye nag pourquoi loolu am kan moo créé évaporation bi kan moo créé rencontre ngelaw yi kan moo ko pousse ba gox tel mu sotti ko fa nam ko fa neexee mbokk kooku mooy yàlla jalla wa ala loolu moo tax ba histoire wane ba tey jullit ñi jaaxle dem ñaan taw yàlla may leen taw bal ay yéeféer sax daanañ jaaxle dem ñaan taw yàlla may leen taw ndax borom boobu moo ne wa yunazzilul ghaysa moom dong may wàcce taw nam ko neexe mu ne waxtu salaatil iid mooy waxtuha ana ban waxtu moo gën ci dem ñaan taw mu ne may waxtu salaatil iid mooy waxtu wa ñuy jullee it li qawli aishata radiyallahu anha xaraja ilayha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xiina bada xaajibu shams yonent bi génn na di ñaan taw bi mu demee ba feeñ la nga xam ne mooy ceeñeeru jant ba nga xam ne mooy tax ba boo koy xool mu xaw a naqari loolu loolu ca la ko def te du ci bari mooy bu jant bi masan génn ba dox lu ëpp ay quinze minutes gayra annaha tufalu fi kulli waqt doonte ne julli googu manes na koo def ci waxtu wu nekk ma ada awqaati alkaraha allati nuhiya an salaati fiha bam des ci waxtu ya nga xam ne dañ koo sib ñuy tere ku ciy julli waaye bu dul loolu waxtu wu ñuy julli it ci la gëni ñeenteel bi maa yustahabu qablaha lan lañu sopp jiitu loolu yustahabu an yu'lana an an anha imam qabla mawidiha bi ayyam dañoo sopp heure bu ñuy organiser jullig baaw naan imam ba daal di koy yëgle ci ay fan avant bis ba di ñëw wa an yad'u an-nas ila ila tawbati min al-ma'asi wal khuruj min al-mazalib su ko defee mu ñaax nit ñi ngalawaay daañu war a ñaan taw bi sangam képp kenn ci ñun na tuub ay bakkaaram ko tooñ moroomam na ko balu aq wa ila siyam wa sadaqa wa tarkil mashahin na doon buñ ca mënee boolee koor ak génnee sarax ak bàyyi noonoo ya amoon seen diggante li anna al maasi sababul jab jadb ndax bakkaar dong mooy tax maral di am kama anna taat sababul xayraat wal barakaat amma topp yàlla mooy sabab ci yiw yi di wàcc ci barke yi di wàcc suñu borom moom lay wax naan walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ard walakin kazzabu fa axadnahum bima kaanu yaksibun bu doon waa dëkk bi dañoo ragaloon yàlla gannaaw bañ gëmee moo ubbi barke asamaan ak suuf weddi gañ weddi nag moo tax ma jàpp leen nañ doon def téye sab taw mi ngi noonu sifatuha naka la ñuy jullee la nga xam ne mooy jullik baaw naan donte ne ni am na ay riwaaya yu xaw a safaano yu cay rot waaye nag moom mu ne wa sifatuha melokaanam an yaxruja al imaamu wannaasu ila al musalla mooy nit ña ànd ak imam dem ca julleekaay ba fa yusalliya bihim rakaatayni mu julleeg ñoom ñaari rakk yukabbiru inshaa fi l ula sab'an wa fi thaniya xamsan ka salaatul iid su ko defee buy ubbi mu daal di kàbbar juróom-ñaari kàbbar gannaaw ba bu jógee ca ñàkk ñaareel ba mu kàbbar juróomi kàbbar comme niñ koy defe ci iid wa yaqra'u fi l-ula jahran bi sabbih isma rabbika al-a'la ba'da al-fatiha wa fi s-thaniya bil ghashiya gannaaw ba mu def comme niñ koy defee rek ci jumaa yi jàng sabbih isma rabbika al-a'la ak ghashiya summa yastaqbil an-nas gannaaw ba mu jublu ak nit ñi wa yaxtuba xutbatan yuksiru fiha min al-istighfar mu xutba leen xutba boo xam ne dana ca baril jéggulu yàlla ak ñaax ca nit ña su ma yaddu wa naasu yu aminoon gannaaw ba nag muy ñaan nit ña di wax amin su ma yastaqbil al qibla gannaaw ba mu jublu qibla wa yuxawilu ridaahu mu wëlbate lambaayam ay lam soloon fa yajala ma ala al yamini ala al yasaar mu def la féetewoon ndeyjoor mu nekk ca càmmooñ wa ma ala al yasaari ala al yamin mu def la nekkoon ca càmmooñ mu féete ndeyjoor wa yuxawilu naasu ardiyatahum nit ña itamit wëlbati seeni lambaay su ma yaddu u saa wa yansarifoon mu daal di toog ñaan ab diir gannaaw ba ñu daal di en tasaaro wa zalika li qawli abi hurayra radiallahu anhu xaraja nabiyu salallahu alayhi wa sallam yastasqi yonent bi day génnoon na di sakku la nga xam ne mooy ay taw ñaan ndox wa salla bina rakaatayni mu daal di cay julli la nga xam ne mooy ñaari rakka bila azanin wala iqama ci loo xam ne nii kenn noddulu ko kenn liqaamalu ko suma xatabana wa daa laha gannaaw ba mu xotbal ñu daa di wa daa laaha mu daal di ñaan yàlla wa xawala wajhahu naxwa alqibla rafian yadayhi wëlbati kanam nga jë jëm xibla di yëkk ci ay loxoom suma qallaba ridaahu gannaaw ba mu wëlbati lambaayam ba fa jaala al ayman ala al aysar wal aysar ala al ayman mu def ndeyjoor féete càmmoñ ak càmmoñ féete ndeyjoor loolu mbokk kon moo rob ci jullik la nga xamee ne nii mooy baaw naan indi na fii ci loo xam ni nee na rot na ci yonent bi nam daan ñaane donte ne ala kulli xaal mën nañ koo jël rek mu ne baad ma warada min alfaasi du'aa fiha yonent bi lu mu daan ñaan buy ñaan taw ruya annahu sallallahu alayhi wa sallam kaana iza stasqa yonent bu daan ñaan taw dana wax naan allahumma asqina ghaysan mughisan mari'an mari'a yàlla yàlla nag ñu nandal taw boo xam ni danañu wallu muy taw boo xam ne danañu teggil suñu maral gi lu ñu tawlu mu doon loo xam ne lu mucc ak mujj la doon loo xam ne nii lu yaatu la xadaqa doon loo xam ne nii lu bari la mi nga ñen mu jëllalan aaman tabaqa daa ne ko yëpp sorewul muy loo xam ne nii day doon lu màgg doon lu matale doon loo xam ne day ëmb lépp mi ngi noonu saxan daaima doon yiw woo xam ne nii lépp day doon lu sax allahuma asqina alxays wala tajalna min alqanitin yàlla yàlla nag ñu nàndal ca bañ ñoo boole ci ñuy ñikki ñàkk yaakaarati allahuma bil ibad wal bilad ay yàlla ñu ngi lay ñaan ci nga xettali jaam yi xettali dëkk bi wal bahaim ak bàyyima yi wal xalq mi ngi noonu min al awa ak mboolem mindaafon ya nga xam ne nii dañoo nekk ci tasaaroo ci gox yeeg yu dema noonu muy bàyyima ya wal juhdi wa dank maa la nashkuhu ila ilayk ñi ngi jàmbat jëm ci yow di ñaan jëm ci yow coono bi ñu nekk xat-xat yi ñu nekk loo xam ne duñ ko diis kenn ku dul yow ndax yow rek yaa ko mën a teggi allahuma anbit lana zara ay yàlla meññ lañ ñu la nga xam ne mooy suñu mbay mii mooy saxalal ñu ko wadri lana dara feesalal ñu suñu weeni jur gi mi ngi noonu wasqina min barakati sama yal na ñu nandal ca barakay asamaan yi wa anbit lana min barakatil ard ca nga saxalal ñu ca barakay suuf allahuma irfaana ta taun naam allahuma irfaana naam al juhda naam wa wal juua wal wal oriya ay yàlla yal na nga yëkkati ñun coono bi ñu nekkee xiif bi ñu nekkee rafle gi ñu nekkee wakshif ana min al bala ma la yakshifu gayruk yal na ñu teggil ci natt yi loo xam ne kenn du ko tegg ko dul yow allahuma inna nastaghfiruk e yàlla ñu ngi lay jéggalu innaka kunta ghaffara yow rek yaay ki sax di jéggale farsili samaa alayna midrara yal na nga yónni asamaan mu tawal ñu taw yu tegaloo allahuma asqi ibadak wa bahaimak yàlla yal na nga nandal say jaam nandal say bàyyuma wanshur rahmataka tasaare sa yërmaande wa ahyi baldatakal mayyit dekkal sa dëkk bi nga xam ne dafa dee kama ruwiya annahu sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqulu inda al matr yonent bi daana wax heure bu taw ba daan sóob allahumma suqiya rahma la suqiya azab yàlla yàlla nañ ko def nandalug yërmande bañ koo def nandalug mbugal ay taw yërmande bañ ko def taw mbugal wala balaa in yàlla bu mu nekk luy indi ay balaa wala hëdmin wala xaraq yàlla bu mu doon di ñu mabbal dara yàlla bu mu doon di ñuy labal ci dara allahuma ala diraabi e yàlla mooy bu taw ba masaan dem ba bari ba mu ragal ne day lor mu ne allahuma ala diraabi wa manabiti shajara e yàlla yal nañ ko sotti ca tund ya sotti ko ca fa garab ya di saxe ca àll ba allahuma xawaalayna wala alayna yàlla taw bi sotti ko ci li ñu wër bañ koo sotti suñu kaw loolee mbokk kon mooy la ñu gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na ko ñaan ci bu taw amul doon na ko ñaan it ca biir taw ba incha allah comme niñ ko doon defee képp koo xam ne dafa am ay laaj yu jëm ci jullik ñaan taw incha allah ñu jëm ko jël bala ñuy jël beneen bind bi su dee ne nekk na lu am insha allah waaw naam bismillah naam waaw waaw bu la neexee def benn kabbar rek looloo tax même bi ma koy commencé ma ne julli ñaan taw am na ci ay riwaayu yu bokkul moom bi mu ñëwee gis nga ca ba muy jëkk junj wax na xutba bi mu xutba gannaaw ba doog a julli ci fin bi bi muy détaillé mu indi julli gi avant xutba bi donc loolu lépp mbir la bu mën a nekk looloo tax ba borom xam-xam yi am na ñoo xam ne dañ dañ koy defee ni ñuy defee rek julli iid moo tax ñoom dañuy julli doog a xutba tey julli ga dañ koy def juróom-ñaari kàbbar donte ne am na yeneen riwaayu yoo xam ne day wane ni déedéet naafila rek la kon benn kabbar dong lay am comme yeneen naafila yi wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam waaleykum salaam dañ koy wëlbati li li nekkoon ci côté ndeyjoor dem nekk côté càmmoon du loo xam ne lu ñuy dëpp la dañ koy wëlbati rek te loolu léeg-léeg dana gën a yomb ci ñi sol ay dara wala ñi sol ay manteau ak yu demee noonu que ñi nga xam ne dañoo sol ay xamis sax nga xam ne loolu moom pour nga def ko il faut nga am ci coono waaye ala kulli xaal daal la nga wëlbati même dañu naan boo amoon ba dara desul sax ngay wëlbati sa mbaxane sax wala kaala gi nga kaala woon nga kaalawoo ko ndax benn gaat nga rek booy gaat nga ci maral bi yàlla wëlbati ko indi ab tawlu loolu mooy nekk jubluwaay bi wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam naam su doonte ne ni imam waxoon na ne ni nañ daje bi sangam ñu ñaan taw par yàlla def mu taw avant bis boobee la gën mooy ñu génn dem ñaan taw ndax du taw bi mooy indi nawet bu baax nawet bu baax ci yàlla lay jóge benn taw rek arrangé wul nawet mën naa taw ba pare yem fa kon heure boo xamee ne nii jàpp nañ ne nawet bi kat tardé na wala fi di ko wax ne nawet bi déy na bañ yëg ne dañ kat lii suñuy bàkkaaru ko waral waaye yàlla borom yërmande la bañ joxe ndigal de bi sàngam nañ dem ba tawee it war nañoo dem yëggale yéene boobee ngir ñaan yàlla de sut nawet bi yépp doon loo xam ne lu baax la wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw kon incha allah ñu ñu dem ci beneen bunt bi bu dee mbokk yi amuñ ci fi waaw beneen bunt bi moom mooy bunt boo xam ni moom kenn du ci mucc nit ki mën ngaa dund ba xëy dee doo fekke fu ñuy jullee ñaan taw waaye lii moom kenn mënu kenn du ci mucc mooy moo aju ci attey nit ki faatu doomu aadama da nga faatule faatule bis dana ñëw nga faatu loolu moom kenn mënu cee mucc looloo tax kon mu ne mi ngi lay ubbil juróom-ñeenteelu bunt alfaslu tasian ci téeréem bii fii ahkaamil janais ci yan atte la ñuy war a tege la nga xam ne mooy néew ya mooy ñi faatu wa fihi salaasu mawaat dana la ci indil ñetti bind almaadatul ula bu jëkk ba mooy fii ma yanbaghi min ladunil maradi ila alwafaat lan mooy yey ci fi nga xamee ni nii fa la waaja feebare ak ba fa muy faatoo li jëkk mooy waa ji nga xam ne daa feebar wujubu sabri daa war ci moom mu muñ yanbaxi lil muslim iza nazala bihi durrun daa yey ci jullit heure bu lor wàccee ci moom an yasbira mooy mu muñ fala yatasaxat bu mu nekk di jàmbat wala yuzhir al jazaa bu mu nekk di feeñal ak lot is amara allahu wa rasuluhu bi sabr ndax yàlla ko bi yonentam day ñi ngi déble ci la nga xam ne mooy muñ fii gayri ma ayatin ci loo xam ne du benn aaya ca téeréem ba wa xadis ak xadis yonente ba gayra annahu la ba'sa an yaqula al maridu ida suila an xaalihi waaye nag dara nekkul ci aji feebar ji bu ñu ko laajee mooy lan mooy mbiram inni marid mun a temps yi di dama feebar aw bihi alam wala day métit dafa nekk ci man walhamdulillah ala kulli xaal waaye nag maa ngi sant yàlla ci xaal bu mu mën a doon kon loolu mooy njëlbeenu bind bi jullit bi war naa muñ feebaram waaye nag téewul mu xabaare ne daa feebar teewul mu wone la nekk ci moom ndax ña ngay waxal mën nañ laa jox conseil yoo xam ne yàlla mën na caa jaar ba saafara la gannaaw ba mu ne istihbaabu tadaawi sopp nañu jullit dem faju yustahabu lil muslimi al marid at tadaawi bil adwiyati al mubaaha sopp nañ jullit bi feebar mu dem faju ci faju boo xam ne bu dagan la li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha lam yunazzil daan illa anzala lahu shifaan fatadaawa'u mu ne ay yàlla ay yéen jullit ñi xam leen ni yàlla day du wàcc mukk feebar loo dul wàcce ne lu koy faj ngal la way dem leen faju ju kon loolu yi kon mbokk muy wane ni feebar buñ munta faj ci kaw suuf amul yàlla balaa wàcce feebar dana wàcce la koy faj problème bi nag mooy kaka xam ak kaka xamul gayra annahu la yajuuzu tadaawi bil muharram doonte ni lislaam du dagan ñuy fajoolu xaram kal xamr wal xinziir wa naxwihima julit di fajoo sangara wala mbaam xoox wala lu mel noonu di qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam inna allaha lam yaj'al shifaakum shifaakum fi ma harrama alaykum yàlla deful li leen di faj ci lim araamal ci yéen loole it julit ñi war ca bàyyi xel bu baax ca bokk na ci kon mbokk sabab yi ab julit di war a def mooy bu feebaree képp kum jàpp ne kat kii mën na koo faj wala lépp lum jàpp ne lii mën na koo faj mu xam ne lii ci ndigalu yàlla la koy defee ci ja ci sukkandiku ci yàlla bokk na ci jël la yàlla indi jëfandikoo ko ngir ñaan yàlla faj la mi ngi noonu jawaazul istirqa dagan na ci nit ki dem mocculu yajuuzu lil muslim al istirqaau bil ayat mooy nekk di def ak mocc bil ayati al quraniya wal adiyati nabawiya wal kalaami tayib dagan na ci julit mocc ci aayay al quran wala ci sunna yonent bi wala kàddu yu teey ya nga xam ni am nañ expérience ni ku ko wax ci métit mu mën koo teggi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa ba'sa bi ruqa maa lam yakun fiihi shirk yonent bi nee na dara nekkul ci mocc fii ak shirk nekkul ca loolu it mbokk mi ngi noonu bokk na ci loo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxal na ko mooy faatiha day day mocc gannaaw ba it la nga xamee ne ni mooy lu mel nii almuawizaati qul wallahu ahad qul adrul falaq qul adrul bin nas ak la nga xam ne ay ayatul kursi ak yu demee noonu yooyu yépp ci wàllu mocc la ren mocc googi dafay jëm ci wàllu njabar wala wàllu feebar wala wàllu ay matt matt matt mattu jaan la ak yu demee noonu gis ngeen abi saydul qudri ba mu demee di mocc buur ba jaan jamaatoon wala jiit jamaatoon fatiha rek la ci doon jàng mu daal di wér kon loolu lu dagan la ñu mën koo jëfe na doon feebar bu mu mën a doon am nañu yàlla may ñuy mocc ay dama dam am nañu yàlla may ñuy mocc jaan ku koo xam ne jaan da koo màtt am nañu yàlla may ñuy mocc lu bëree bëri règle ba ci yonent bi alayhi salaam wax daal mooy bu ci shirku amul fexeel ba kay mocc moom bañ a wax baat yoo xam ne baatu bokkaale la waaye bu dee baat yépp daa jëm ci yàlla su boobaa dagan na ñu jëfandikoo mocc googee waaye nañu ñeenteel bi mu ne tahrimul tamaim wal azaim dana aram ñuy jëfandikoo la nga xam ni tey doon luy matal ak di la mottali wala fa dëkkatu di rek gàllaaj dana du islam du nangu ngay takk ay gàllaaj yuhramu taaliqu tamaim wa istimaalu azaim la nga xam ne ni mooy takk loolee nga xam ne nii dalay indil ay njëriñ wala loo xam ne nii daf lay nekk dala dàqal ay lor yooyu yépp bu dee lu ñuy takk la mu ne lislaam du ko d'accord fala yajuzu lil muslim an yualliqa tamimatan daganul jullit muy dem naan di takk ay gàllaaj li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man alaqa tamimatan faqad ashrak koo xam ne yaa ngi nekk di takk loo xam ne nii dalay dolli di la jox ak wér wala jox lu mu mën a doon yaa ngay bokkaale wa qawlihi man alaqa tamima fala atamma allahu la képp koo xam ne yaa ngi takk looy takk ngir di ko dimbali ko di ko mottali ko yàlla bu yàlla matal say mbir wa man alaqa wadaa wadaatan koo xam ne dafa takk lu koy dàqal ay lor fala wada allahu lahu yàlla bu yàlla tegg loram googee wa qawlihi wax na ba tey lilazi absara ala yadihi xalqatan min sufr koo xam ne dafa gis ca loxoom benn lam boo xam ne dafa nekk ci lamu xànjar yooyu way xakka ma haza mu ne ko waaw alkaa nga ñeel na la lii li nga takk lu mu doon xaala min alwahina mu ne lii day day teggi ak lompoñ ñeel ka ka takk xaala inziha fa innaha la taziduka illa wahna mu ne ko dindi ko lii du la dolli lu dul ak lompoñ rek wa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflasta abada ci it boo dee woon fekk yaa ngi deeyaale lii kon day xamal ni doo doon koy texe mukk ala kulli xaal moom indi na position bi nga xam ne mooy bi gën a mucc ayib mooy jullit du takk dara doonte ne nag am na ay borom yi xam-xam yoo xam ne ñoom dañoo d'accord ne su dee ne la ngay takk ayab alquran la bu musluwaay nekk wala ñaanug yonent bi bu musluwaay nekk loolee daañ ko toléré mi ngi noonu am na borom xam-xam yu wax loolu waaye bu ñu xoolee la gën a mucc ayib mooy li mu wax moom lu waral loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a xam ñëpp alxuraan te mosul takk dara mosul takkal njabootam dara te it amuñu benn texte bu leer buy wane ni mas na wax kenn jëlal aaya tel nga takk ko kon te gën a mucc ayib mooy yem ca nam doon jëfandikoo alquran ak nam doon jëfandikoo ay ñaan ca mooy di ko ñaani ak di ko mocce amaa di ko bind di takk loolee da ngay gis ni bu dee la mucc ayib mooy yow jullit bul def loolu amaa nag boo gisee koo xam ne da koo defit ah nga bañ koo ayibal ngir borom xam-xam yi gis ne ñoom loolee bu dee ne ayib alquran la wala azkar bu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam la mën su koo takk amma nag bu dee la wuuteeg loolu béjjën yaag fentaw yaag cuur yaag xaatim ya ñuy def ak yépp nga xam ne nii jógewul ci alquran jógewul ci sunna loolee moom jullit warul jëfandikoo loolu mboolem mi borom xam-xam yi ñuy sukkandikoo ñoom xam nañ ne jullit du war a jëfandikoo loolu loolu it bokk na ci li bari ci nit ñi di ko def mooy lami bronze yooyu ñuy takk bokk loolu l'islam nanguwu ko ñu bëri dañoo jàpp ne da leen di fegal ay rhumatisme ay régulariser seen tension kaza wa kaza mais l'islam reconnaître loolu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax bu dee juróomeelu bind bind bi mooy baadu ma kaana yastashfi bihi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lan la daan saafarawoo kaana alayhi salaatu wa salaam yadu yadu sharifa ala al marid wa yaqul yonent bi daana jël loxoom ba tedd ba di ko teg caaji feebar naan allahuma rabba nnaas azhabil baas ay yàlla yow mi borom nit ñi yal na nga teggi lor bi ishfi anta shaafi yal na nga saafara yow rek yaay saafara laa shifaa ila shifauk amul kenn amul lenn luy saafara lu dul sa saafara shifaan la yugaadiru saqama yàlla yal na nga saafara saafara boo xam ne du bàyyi benn feebar ci ki nga xam ne nii mooy ki muy mocc wala même bu dee boppam mi ngi noonu kon loolu ak ñaan la goo xam ni jullit bi war koo tàmm di ko def boo ko mënee ci arab ba xërit boo ko mënul ci wolof it boo ko mënul nga wax ko làng ba nga xam te yàlla borom nit ñi yàlla na nga yóbbu métit bi saafara yoru yaay saafara amul benn saafara lu dul sa saafara yàlla na nga saafara saafara bu bàyyiwul benn feebar loolee ku nekk war na koy ñaan ñeel boppam di ko ñaan ñeel njabootam wa qaala lilazi shaka ilayhi wajaa benn waay ñëw ne di ko jàmbat ñu nga noonu usman ibnu laas ñoo ne ko ay yómi yàlla yónni man day dama am sama place tel day métti métti bu tar mu ne ko da yadaka ala allazi ya'lamu min jasadik sa loxo da nga koy jël teg ko fay metti ci sa yaram wa qul bismillahi salaasan gannaaw ba nga ne bismillah bismillah bismillah wa qul sab'a marat nga wax juróom ñaari yoon a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaziru maa ngi làqu ci yàlla di làqu ci kattanug yàlla mooy ci ayu lii nga xam ne maa ngi koy yëg ca di ñaan mu teggee ku ci man mooy di ko di ko moytu ñaan mu teggee ku ci man loolu mbokk yi tamit na ngeen xam ni ci ñaan yi gën a am solo la ñu war koy bàyyi xel bu baax ñu ngi noonu mooy da ngay teg sa loxo fi métti nga ne bismillah bismillah danaa bëgg a wax juróom-ñaari yoon maa ngi làqu ci yàlla kattanam ci ayu lii may yëg te di bëgg mu teggeeku ma bëgg dëgg bëgg bëgg bëgg mu teggeeku ma maa ngi ñaan maa ngi làqu ci yàlla kattanam ci ayu lii may yëg te bëgg mu teggeeku ma kama rawa muslim aydan anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam ishtaka faraqaahu jibril yonent bi mas naa feebar jibril ñëw di ko mocc alayhi salatu wassalam bi qawlihi bismillahi arqiika min kulli shay'in yu'zika ci tur yàlla day laa lay mocce ci ayu lépp lor ci ayu lépp lu mu doon lu lay lor min sharri kulli nafs maa ngi lay mocc ngir nga mucc ci ayu bépp bakkan aw aynin xaasid ngiree nga mucc ci bët boo xam ne bëtëb iñaan la allahu yashfik yàlla na la yàlla saafara bismillahi arqiik ci tur yàlla la lay mocce te loolu itamit mbokk ci façon mocc yi la ñu xam ni doomu aadama yi am nañu ci yàlla nattoo heure boo xam ni dañoo am iñaan guñ la iñaani seen bët mën na laa lor seeni wax mën na laa lor seen làmmiñ mën na laa lor loolu moo tax ba jibril doon ñaan yonent ñaan yàlla subhanahu wa taala mu musal yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ci loolee juróom-benneel bi mu ne jawaazu istitbaabu alkaafir wal mar'a dagan gi nga xam ni dagan na nga dem ci yéeféer mu faj la wala jigéen dem ci góor mu faj ko wala góor dem ci jigéen mu faj ko ajma al muslimuna ala jawazi mudaawatil mudaawatil kaafir jullit ñi dëppoo nañ ci ni dagan na ci nga dem ci yéeféer mu faj la ida kaana aminan lil muslim su dee ne kay nekk na médecin boo xam ne wala fajkat boo xam ne bu wóor la dagan na mu faj julit wa ala jawazi mudawaati rajul lil mar'a dagan na it góor dem di faj jigéen wal mar'a lil rajul jigéen faj góor fi xaali darura su dee lor moo am ca mbokk julit bokk na ci loo xam ne nii moom amul mushkila mooy julit nga dem ci yéefeer mu faj la su dee médecin bu ñu wóolu la noonu it la dagane nga gis yéefeer bu feebar nga faj ko fii problème bi ñu am ñun mooy góor faj jigéen jigéen faj góor loolu mbokk dagan na waaye daf ne fii xaali darura ci jamono bu lor amee mais malheureusement ñi nga xam ne ñoo tëral suñu fajukaay yi ma nga jóge ca yéeféer ya looloo tax ñoom duñuy teqalee diggante faj góor ak faj jigéen mi ngi noonu yal na yàlla dolli wér kenn ci suñuy mag bi Ibrahima Kan bi ngeen xam Oustaz Ibrahima Kan dana daa dem hôpital Fann ci salle de massage yi nga gis benn jigéen ma nga tuddi ne góor di commencé benn góor tuddi ne jigéen di commencé ne aw mais yéen comme yéen ñëpp ay dërit ngeen xam ne lii daganul jël leen jigéen ñi maasi góor góor ñi maasi jigéen ñu ne ko ah oustaz wax nga dëgg de nangam nangam waaye nee na ba mu fa dellu si ba mu ba mu fa dellu it loolu la fa fekkaat ndax pour pour ñoom loolu moom vraiment le problème da ngay dem benn hôpital góor te jóg jigéen fële benn médecin góor te jóg jigéen fële benn médecin jigéen te jóg góor fële loolee da ngay gis problème la loolu tax firilaay alhamdu am ay mbokk yoo xam ne ñi nga xalaatoon taxawal hôpital bi ñuy tuddee Chifa yi nga noonu mbokk yi ngeen xam fii ñu woote su na ñoo ko taxawal seen jubluwaay ba taxal ñu taxawal ko mooy fexe ba ku fa dem góor faj la bu dee jigéen jigéen faj ko ba tey it loolu moom la ña ko taxawal sant ña koy taxawee loolu lañ leen sant léeg-léeg mën na am ay faay waaye ba tey boo fa demoon tey dafa médecin pour góor médecin pour jigéen dentiste góor dentiste su jigéen lépp loo xam ne nii nekk dafay service daañ fexe ba am góor ak jigéen loolee moo taxoon ñu créé Chifa bi loolee ñu xam ne ku fa dem di jigéen góor faj la wala góor faj la it loole ay incident la yoo xam ne xëy na liggéey baa ko waral waaye jubluwaayu hôpital ba la taxoon ñu créé ko du ut xaalis du ut dara mooy rek gis nañ tumuranke gi mu tumuranke tey lu bari ci góor ñi da ngeen dem hôpital jigéen di la faj jigéen góor di la faj loolee moo taxoon su ko defee wareef la rawatina ci jigéen nga góor-góorlu ba sa kéemtaleel kàttan tànk yaa ngi mën jigéen di la faj bul dem nga looy góor di la faj yow it góor naka noonu mu am beneen feebar boo xam ne daf ñoo dal feebar bu grave et très grave sax lay wax mooy wàllu gynécologie tey jii bu ñu xoolee les prof gynécologue yi am ci dëkk bi quatre-vingt-dix pour cent yi presque ay góor lañ jigéen ñi léegi ngir émancipation sama gynécologue bi boo ko da ngay xool xale bu jigéen bu ndaw toll ci ëmb bu bees dem wéet ak góoru jàmbur mu futti ko di xool awraam fa gën a gën a gën a gën a sori loolee boo ko xam dara dara gënta grave loolu su ko defee kon concours gynécologue mënees na ko ak ci jigéen mooy heure bu yeggee ci xaal boo xam ne xaalu jàpp nañ ne kii kat da mi ngi loru wala doomam mi ngi loru ci amuñu beneen jigéen bu am xam-xam bu ko assisté su boobaa ñu jëli gynécologue bu góor mu assisté ko mais tant que jàmm mi ngi am suñ maam yi jur nañu suñuy bàyyi suñu suñ suñ suñu yaay jur ñu ñun ñëpp te mosuñu xam ay problème gynécologue loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax ñaax ci bu baax a baax suñu jigéen ñi ci wàllu googee ah kon mu ne waruñu koo def lu dul bi xaali darura mu ne is isista istaxdama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baad al mushrikin fi baadi shuun mu ne yonente bi alei salatu wasalaam jëfandikoo ba lu lu ba tey ay bokkaalekat ci lenn ci ay mbiram bokk na bi ci gën a siiw mooy keroog ba muy jóge Makka di dem Madina te waa Makka di ko wër ñu ne ku ko indi ku indi bopp Muhammad téeméeri giléem ku indi bopp Abubakar téeméeri giléem yonente bi alayhi salatu wasalaam benn yéeféer bu ñuy wax abdullah ibn urayqat ku ñu xamoon ak maandu teem ak sériyeem la yonente bi jël moo ko gide moo ko aboubacar jaarale leen ca montagne yi wiiral leen ba sauvé leen loolee kon na mu jële woon bakkanam ba wóolu ab yéeféer ci loolu naka noonu it yow julit boo gisee yéeféer bu maandu mën ngaa dem mu faj la mu ne it wa kaane nisaau sahaba yudaawina al jurha fi al jihad ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam heure bu ñu daan dem di jihad yonent bi musul jihad benn jihad lu dul yéefar yi ëpp nañu leen presque lu jege fukki yoon kon góor ñi ña ngay xeex jigéen ñi ñoo nekkoon arrière plan di jël ndox di may góor ñi ñuy naan bépp góor bu daanu ñu gaañ ko ñoo koy xëcc yóbbu ko faj ko loolee kon lan moo ko waraloon mooy lor kon it heure bu lor amee jigéen mën na faj góor waaye nag su dee lor amul ngalla waay ñuy moytu lu demee noonu xam naa mbokk dañuy yeme di fii ba yàlla dajalewaat ñi fii yal na yàlla saafaral ñu suñuy jàngoro jéggal ñu suñuy bakkaar wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain comme am mooy lan mooy su yéene ñetteelu fase ba la su yéene ñetteelu fase ba non su dee ne kon ñaari fase yu jëkk ya mooy luñ tuddee talaqu rajiya loolee moom borom kër moo war a dundal soxnaam fii ak idda ba jeex ba ba idda bay jeex bu dee ñetteelu fase ba faafee la ixtilaaf am ndax war na koo dëkkal wala war na koo dundal am na ci ñoo xam ne dañu ne da koy dëkkal da koy dundal ba ba idda bay jeex am na ca ñoo xam ne dañu ne du ko dëkkal du ko dundal te mooy xadisu Fatima bintu Qays boobu nga xam ni nee na ba iddam jee ba ba ko jëkkëram fase ñetti fase yonente bi dana ko amoo fuñ lay dëkkal amoo luñ lay dundal bu dee lu mel ne mazhab Maalik moom da da koo teqale moom dani moom du ko génne waaye nag dundam waratu ko waaw dama ñetti fase la du ko génne mën na ko dëkkal waaye dundam waratu ko loolu daal la ñuy wax ci wàllu googee waaye bu dee nag fase bu ñu mën a delloo moom su boobaa moo koy dundal ba ba idda ba di jeex wallahu aalam naam naam ala kulli xaal la nga xam ne nii moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale mooy tegal sa loxo nga ñaan ñaan gi loolee foofu la sunna yem boo tegee sa loxo nga ñaan ñaan gi yàlla ngay ñaan am na yeneen riwaaya nag yoo xam ne day wane mocc goo xam ne da ngay ëf kama bi saydul xudri bu muy mocc ca ca ca fatiha ba da def bu jàngee fatiha rek ëf ci ëf yu ànd ak tuuti ay ferñeenti taflit def ko ak yoon waa ji jóg loolee kon dana mën a am ci yeneen mocc waaye bu dee moccu métit bi moom la yeneen ci bu wax tegal sa loxo nga ñaan yàlla juróom ñaari yoon ñaan gi loolee lañ gis fa la xadis ba yem wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam dafa am koo xam daa feebar fu ñu ko yóbbu ñu ne lii ndoxo nit moo ko def ala kulli xaal ñaar moo ca am su dee nii waa ji dafa am expérience ci xam nit ku ñu njabar mu gis ko xelam may ko loolu loolu yi duñ ko mën a tere ci expérience mais bu dee koo xam ne dafay doon aji seet di seet ci kumpa ba xam ne kii diw duñ ko liggéey islam reconnaître loolu loolee mu def islam reconnaître ko su ko defee doomu aadama bi heure bu dee ne feebar dal na ko ñu faj ci faju zahir yépp amu ci benn résultat dara nekkul ci mu mocc mocc goo xam ne nii dafay teggi la nga xam ne mooy jabar te loolu itamit xam na ci ay mocc yoo xam ni boroom xam-xam yi am nañ ci ay expérience comme nañ ko doon junje ci ayatul kursi yaak ak muawizaat yi waaye am ma dogg ci ne kii dañ koo njabar loolee duñ koy kenn du ko def man ngaa am nag ki nga xam ne am na expérience faj gis réaction waa ji jàpp ne lii njabar moo ko waral ndax njabar moom islam da koo saxal ne lu am la wallahu subhanahu wa taala alam naam aleykum wasalaam mën na dem ci yeneen lan waaw ala kulli xaal mbokk li ñuy jëkk a wax mooy képp ko feebar dama la hôpital hôpital moom mooy la gën a wóor demal hôpital bul yem ci benn médecin bari na fi ay nit ñoo xam ne dañu ne njabar moo leen jàpp wallahi ci ñu ma xam ñu ma jege ñoo xam ne rey loolu lañ leen ay xar ay bëy ay ginaar loolu la ñu rey loolu leen ko dañ leen a njabar te dara amu ci bañ demee am na médecin yu bëri yum jaar mais fa mu mujj ñu defal ko benn scanner boo xam ne ni approfondi lañ gis ne kat ndekete suufu resem bi am na benn genre lumb bu ci nekk loolu moo koy puus ba tax crise yi koy dikkal di koy dikkal ñu naan njabar la sétéo gi lañ ko opéré génne ko booba léegi muy na cocc yàlla dolli ko wér bari lu ñuy jiñ njabar fekk du njabar demal ci médecin yi ba tëli ci ñoom soo demee ba médecin ba tëli ci ñoom it la ca des mooy sukkandikul ñaan yàlla su dee ne gis nga it koo xam ne jàpp ne na am na expérience ci mocc ah soo fa demee sabablu ci moom waaye nañu xam ne du ko faju rek wér feebar yépp a ci yem faju moom da ngay faju di ñaan yàlla ça ne veut pas dire que ne ni faju mooy tax a wér wér ci loxo yàlla la nekk wallahu subhanahu wa taala alam naam naam asalaam
ñaan Makka boobu ci moom lañ koy indi moom buñ ko indee mbaxanaam rek lay gis mu def def bopp mu wàcce rek mu jóg dem yoonam am ñi nga xam ne dañ jël ay yëkk ñu jox ko ñu ñu ñu mun koy fay yëkk pour mu pour mu jàngal leen mu bàjj mu deyaale moom
wala kuli xaal jël mbaxane di la ko teg jàngul moom al jàngul alquran jàngul dara moom wax dëgg yàlla
wala ala ala ala ala ala ala ala kuli xaal li ñu jàpp li ñu jàpp mooy du mbaxane bu mu lay teg rek moo lay saafara fokk mu am wax yoo xam ne da ko caa boole fokk mu am wax jum ca boole na doon nag wax ja dagan na wala wax ja daganul waaye mbaxane kese du faj ndax bu dul loola bu dee mbaxane ma kuñ ko mu àndal ba mu dee mbaxane ma ndax kuñ ko teg da nga wér man ma ne ba mu dee ndax mbaxane ma kuñ ko teg jaan matt nga wér am ñi nga xam dañoo tey te ay yëkk laa la wax ñu jox ko pour mu jàngal leen loolu waaw moom laa lay bëgg a wax dama ne en général boo loolu bu amee du ne mbaxane bi mooy faj am na kàddu gum cay boole yoo xam ne nii mooy tax waa ji wér Euh, euh, kàddu mocc ñaari ci am lu dagan ak lu xaraam am na ñoo xamee ne nii euh, tey jii bu doon te ne ni camion daf la moxoñi buñ la tegee fii léegi ay yéeféer am na ci suñ ma sama mbokk si bi ñu nekk Côte d'Ivoire ak même sama mbokk Dramane Diallo ñu nekk fii ñoo xam ne dañ lay wër di wax li ngay wax yax yépp delluwaat mais lu ci bëri ay mushrikuuna lañ moo tax yonente bi saam ne dara nekkul ci mocc fii ak shirk nekkul ci am na ñoo xam ne nii tey jii jaan boobu ngay wax na am bu ñëwee ñu mocc dangar bi dañ mais am na ñoo xam ne nii ay façon jaan yoo xam ne bu la màttee da ci bàyyi bëñ te xam nga loolu da ci bàyyi bëñ bëñ boobee tey tubaab xamul lu mu koy dindee tubaab li mu xam mooy sérum antivénémeux dangar ji wàcc mais bëñ bi ci biir xa- tubaab xamul lu mu koy dindee am na ñoo xam ne boo ñëwee tey dañ lay moccal léegi waa ji ñu indi ko mu nekk dans le coma jaan ji màtt na ko mu nekk dans le coma dañu ñëw mocc ko léegi mu jóg ci sóoli ñu mocc bëñ bi génne ko nii ñëpp di gis loolu am na ñoo xam ne yàlla may na leen ko kon mocc moom lu sax la ñaar nag moo ca nekk kii wax lox joo xam ne nii ju yàlla gërëm la ak yàlla lu yàlla gërëm looloo tax yonente bi alei salam dane dara nekkoo ci mocc fii ak shirk nekku ci loolu daal moom la mooy re mooy règle bi wallahu subhanahu wa taala alam naam naam dañoo kuuru jumaa bi dafa am foos bu nekk ci bi ci suufam ala kulli xaal bu dee ne jàkka ji dañ ko dër foos ba ci suuf la nekk loolee amul jeexital ci seeni julli bari na ci ay kër yu bari yoo dem tiwoo douche yi xamoo sax fu mu jaar maadaama daal foos baa nga ci suuf kenn du ñëw ci jàkka ji kuñ ko waxul sax doo ko xam loolee jullee fa dara nekkoo ci loolu bu dee la nga xamee ne nii moom mooy li ñuy tuddee ay perte blanche yiy génne ci jigéen lu xaw a compliqué la am na ci ñoo xam ne dañuy teqale mooy bu dee ma ngay génne fa nga xamee ni nii fa lay tuure ndox muy sawe loola dañ naan sabe la bu dee ne ma ngay génne fa muy ànd ak borom këram ñu ne du sabe te loolu xam ngeen dafa am ñaari yoon yoo xamee ne nii daal lu xawee jafee lijjanti la ba nga xamee ni li gën a mucc ayib ci jigéen perte blanche yépp nga di ko raxas am na ñu ne sobe la am na ñoo xam ne dañuy dana toj njàpp bi mais du sobe moo ngelaw yooyu yem waaye nag la gën a mucc ayib ci jigéen mooy nga di ko raxas tant que nekkul bariwaay boo xam ne nii danay doon lu la lor su boobaa da ngay gis ne soo jàppee ba julli su boobaa day doon règle bu dugg ci wàllu salas loolee nekkul du la lor loolu daal la ñu mën a wax ci wàllu googu gannaaw ba ci ixtilaaf amee ci borom xam-xam yi wallahu subhanahu wa taala alam waaye ah yé lu mu mën a doon ci sobe bu teqee ci yére fa mu teq rek la ñuy fóot amul benn sobe buy tax ñuy fóot yére yëri sobe bu mu mën a doon sawlam lu mu mën a doon bu teqee ci yëri côté ba mu teq rek ngay fóot ba gannaaw ba jullee ji ak moom même bu dee wowagul mën ngaa dem jullee ji ak moom kon mbokk mi ngi noonu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain